mbokku internetu Sénégal Buzz 221 mbokk yi di am mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax rek ni ñu koy defee saa su ne euh, ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ni moo di actualité bi xew fii ci Sénégal ci événement bi nga xamante ni mi ngi xew euh, démb ak tey manifestation yi nga xamante ni interdit nañ ko opposition bi ngir taxaw ñaxtu li leen naqari ci réew mi waaye ma dalal ci ndaw loo xamante ni xam nañ ko euh, ci taxawaayam ci réew mi ci taxawaayam ci li nga xamante ni moo di Parcelles Assainies di Sokana soo maa ngi la di ñaan ñëpp jaam jaam ju bëri jaam ju bari rek jaam rek lañ xam jaam la ñëpp xewee waaw yàlla yàlla may jàmm jàmm ju bari sax. yal nañu yàlla may jàmm moom la ñuy ñaan waaye li ñu gis euh, sànq ak léegi mel na ne liy xeeñ ci réew mi du jàmm euh, ci ñi nga xamante ne moo di opposition bi ak pouvoir bi naka nga gisee loolu. mais ñun ñun mooy loolu gaan jàmm ñun mooy man xamatuma sax lu may wax ndey parce ma man ñun dañu nelaw sax man. maa mboo booy bi heure bi ni ñu war a caar ñu a dem saal ni entraîné ji ak gars mooy loolu quoi mais mu jëw ñu dem saal sax waaw parce que am na loo xam doy waar tamit tamit dëkk bi mooy loolu quoi parce que gars yi di jiite ñoom dañu war a di toléré xam nga toléré bu amee si dëkk rek lépp ay tolloo mais toléré bu amul si dëkk rek mooy loolu yow sénégalais yi gars yi taluñu ay coow ay kii sax barke alxuraan karim parce que temps bi ñun dépassé nañ fu ñu nekkee ni ñu ne dañuy taal suñu dëkk est-ce que mais am na loo xam ne droit wu nit dañ la koy may tey man su ma ne woon caabi moom nii du dem saal du dam koy tere entraînement day jixaar man est-ce que mais jixaar yi bu bëri façon dina jixaar ak man si yoon ba pare na ma soo lii ak lii est-ce que kon gars yi ñoom kon gars yi xam nga xam ñoom ñoom dañoo bëgg ñoom ñoo bëgg kalaate Sénégal mais gars yi mais neexul yow tam nit ñu ne dëkk démocratie dafa am quoi xam nga li ma la wax mooy lan. nit am na droit yow mi journaliste taxaw fii si tali bi sans violence yor sa micro di wax ak nit laaj ko lu xew ak lii ak lee sans loolu say droit la bokk nit dafa am ay droit am parce yàlla bu ñu sàkk sax ñun daf ñu may suñuy droit ba pare wax ñu ay droit moom mi muy def ñun sax suñuy tooñ yàlla te suñu borom day neutre. est ce que mais gars yi dañu bàyyi incitation bu ñoom incitation à la violence xam fa la commencé si kaw. ci kaw pouvoir parce que incitation à la violence si kaw la commencé parce que ñun ñoo dépassé ay nekk man maa sama rakk yi ngay gis ni ñun dañoo weex dunk suñu weex dunk bi yëpp mooy dëgg la ñuy dund rek xoolal espèce su cooy rek gars yi fees deli si kese bi exemple loo ay espèce su ñaari booy ñoo taal fii ñee ñun xamuñu ay taal sax ñun dépassé nañu billaay. mais li li waral tey taalbeek yooyu noonu ci manifestation bi ñu bañal ñi nga xamante ne tey ñoo di opposition bi gis nañ bële passé ah, bu ñu ko wootee jàmm am na ku ci ne ñibbi ak salaam tey ñu woote ko ñu bañal leen ko mu jur lii nga xamante ne tey mi ngi koy jur. mooy li mu leen wax chaque jour rek lépp loo gis si diplomatie la parce que tey bu ñu nee ñoom dañuy manifesté wu pacifique mais lan moo waral état bi ne ñoom loolu dañ koy bañ man loolu man loolu laa bëgg ngeen laaj waa état bi am na loo xam ne ta bàyyi di ko laaj chaque fois ñun ñu ñu koy laaj ah mais gars ku nekk xam nga fii temps bi noo waree mais état bi ñoom lan bañ manifestation parce que bee passé ñun dañoo demoon manifestation man maa ngi ko woon pacifique la ñu wax gars yi def manifestation mais bii ñu ne dañuy wootaat manifestation nag gars yi tiit mel ni nañ bàyyi seen propagande yi bu ñu jógee naan booy seen manifestation dañuy xeex wala ñuy dóorante ay bal wala dañuy agressé amul parce ñëpp a ngi fa woon booy def nañ manifestation te mais bii ñu ne dañ koy def rek léegi gis nañ nit ñu bari rek ñu ne noonu dañuy aju mais mun nga nekk leader opposition nga ne yow da ngay woote réunion pacifique gars yi nangu loolu accepté ko gis na fi ñoom France bi ñuy ngemboo ñoom Jean-Luc Mélenchon ay mari Le Pen ñoom dañuy woote manifestation ba pare di def discrimination di def affaire raciste day am dëgg la warul dëgg yow ca Marie Pen day ay manifestation ay def Éric Zemmour bu ñu wootee di saaga noir yi di saaga étranger yi te day am mais la moo tax ñun bu ñuy wootee manifestation si pacifique wala si jàmm gars yi ñu ko bañal man looloo ma jaaxal loolu moom bugg naa ko laaj ñoom xaw ma procureur bi xaw ma préfet parce que ñun procureur ak préfet sax ragaluñu leen comme na tëni nag ñu ne ñoo far parce que ñun bu ñëwee gis booy di jéem a def yenn action dañuy wax ak booy si maayen neneen xeex bi nekkatul ay ay taal fi affaire dépassé nañ yooyu gis nañ léegi nga def gest bu noble bi xale yi ñëwee taal fii nga wàcc si suuf ànd ak jeunes fay li nga xamante ne moo di la. non yow man waaw yow booy ñun judduwuñu si violence. ku si ne da ngaa judd si saratal mustaqim soit yow nga nekk jullit soit nga nekk chrétien lañ judd booy jeune yëpp loolu lañ xam yaa ngi gis yaa ngi dégg bi jàkk bi booy bu julli juli yéen julli ji de mais am na loo xam ne nañ ko bàyyi nit ñi ñoom ñoo ko moom sa droit nit ñu nekkuñu en cage wala prison. jël man sax bu nekkee jël da koy may sartam yi ay lu leeram buy waree julli bu waree lekk yooyu am na mais nit bu nekkee si town bi am na droit du marche pacifique wax gars yi nangu loolu. ci julli boobu noonu laa ñëw ak yow. Ah, tey ci tere manifestation bi dafa topp Ousmane Sonko ba mu war a jug dem julli ju juma jeunes ak police yi arrêté ko ne du génn. loolooy mooy lim la wax régime dictature fa lay commencé mais xam nga ma jaal mais xanaa moom Sonko ñoom dañu ne moom mooy nekk président suba. kon suba Sonko mooy nekk président à la grand suba man loolu ma jaar ma bàyyi ma laaj leen ko wala yow ma laaj leen ko journaliste bi Sonko mooy nekk mais nobody know tomorrow Sonko weex dunk la est ce nañ ko bàyyi mu def parce foo dafa war a julli ji ñi ko tere julli ji yëpp kere yow ma xiyam dinañ ko lay ak suñu borom man ñaan ñaanuma yàlla tere doomu aadama muy dem julli wala muy dem église xam ka laay tere ki nga xam ne dañuy def ñaaw teef ma deew moom. ki nga xam ne day ñëw pour yàq Sénégal ma dee moom ki nga xam ne day ñëw pour ne day fekk sama rakk bi indi coow dañuy oo mais kuy dem julli ji wala kuy dem église mën na dama koy tere kooku man bokkutuma si yàlla. parce que loolu moo loolu moo njëkk a ñaaw loolu moom monde bi ñëpp a koy dégg sa waay dafa sol yëre olofam bu rafet wala dem julli ji ñu ne dañuy téye Sonko loolu fa lañ ko teg. ñoom ñooy indi booy di def seen business yooyu. Mhm. parce que man tey soo ma teree woon jëli mburu booy dañuy bomu de man moom xam naa di nga ñëw douze mille ñoom nañ dee après booy ñëwaat mu nekk ay millions. dépassé yooyu xoolal di dóor ay lakk a ñoom lii da leen neex rek kon ni ñuy dóor ay lakk mos a. ñu xale lakk mos ñii. booy jaaxlo abooy dañuy def lii mooy indi ay coow booy di dóor ay waaw moom. Kroko ñu ngi leen nuyu. maa lay fay bro. bi nga def sànq yaag sookaana uh, wàcc uh, di fayal li nga xamante ne tey mooy pune waaw mais yaakaar naa ne lii dafa ñaaw baak Serigne Touba leen rek laa si doole jaay doole baaxul waaw jaay doole baaxul nekk parti au pouvoir taxul nga ëpp nit yi pouvoir nekk parti au pouvoir taxul nga ëpp ñëpp pouvoir rawatina rawatina nag toute une population bi nga xamante ne dañu dañu dañu dañu dañu am naxar yaakaar naa ne sa doom sax boo koy dóor am na noo koy dóoree ay du yëpp ci boppu borom li amul njariñ marche pacifique la ñu wax yaakaar naa ne marche pacifique bi buñ ko nangu woon heure bi jeex na ba ñëpp ñibbi du dëgg ah ban heure moo jot vingt heures imaginel ñu nangu woon marche pacifique bi kon loolu jeex na ba ku ne dem léegi ñoom nee nañ dañu bañ marché pacifique bi moom moo indi lii te ay du yëpp ci bopp borom nañ waxante dëgg nañ ko dam fii ndax. lépp noonu lacrymogène yaa ngi ñuy sonal fu mu nekk nii mënatuñu sax continuer suñu liggéey ci ban message ngay lancer ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci bopp état bi ak président de la république. bon. booy gis nga temps bi. métti na mënuñu sax def suñu liggéey ndax ay lacrymogène yi ñuy dóor ah c'est très dur. mooy li wax rek nga temps bi moo nekk nii de temps bi lu may wax temps bi moo nekk nii de. dóor ay lacrymogène ci temps bi dóor ay lacrymogène ndax man moo la man coono xoolal da ngay nekk si jàmm sax gars yi dafa mel ne ay provocation la ñuy def ay provocation la ñuy def pour lan xoolal ndeysaan xoolal ay yow gars yi dañuy tóor yi coow si de mais gars yi dañuy incité à ñoom ñooy dafa mel ne leen wax dem ngeen yàq Sénégal. mais lii fan la a yóbbu Sénégal su. mais dafa mel ni gars yi leen wax ñoo leen ngeen yàq Sénégal ñoom ak homme de tenue yi gars yi dañ bàyyi ay dóor ay lii taxul nit bu waree wax dëggam da koy wax xam na laaj am na yoo am na jaratu ko mais parce que dañoo dem mars gars yi dem mars pacifique vingt heures fa sax jeex na est-ce lim la kon gars yi man dama jàpp ne xam la laa jàpp temps bi dafa mel ni dafa rax benn genre dictature bu ñu bëgg def ko waaw jërëjëf jërëjëf so xam naa ne mu nekk nii lu euh, ñu mën a yeggali émission bi ndax euh, lacrymogène yi ñu ngi ñuy attaqué sonn nañ ba mënuñoo continuer li nga xamante ne moo suñu waxtaan waaye di waral sénégalais rek actuellement li xew fii ci Parcelles Assainies métti na trop ak euh, gémi ak ñi nga xamante ne ñoo di askan bi c'est très dur daal mbokk yi di jox dig ci beneen numéro jërë ngeen jëf waaw